dañuy tàmbale nag di remercier service déconcentré état yi nga xam ne ñu ngi def liggéey bu ëpp am euh, euh, solo fii ci Kaolack ñu leen encourager tamit ñu eggali sen investissement yu ñu koy def parce que defuñu ko pour Serigne Mboup dañ ko def pour population kaolackoise té Kaolack ci état du Sénégal la bok bi ci njëkk ñu wax ci Promoville Promoville xam ngeen ni liggéey bi mu ngi dox so xolé fan yi équipe Promoville ñu ngi liggéey ci axe bu jugee marché Ocass jëm ba lycée technique fi tamit ci route nationale 4 bi moy rond point bu jógee ci mairie bi jëm ba rond point euh, Passoire ñu ngi koy ñu ngi ciy liggéey. ñu jëm ci Fera Fera projet la bo xamante entreprise bi ko gañee bu mu koy madame le ministre Mariama Massar, mo fi nekkoon maire wayé directeur général bu Fera ci bopam ci ay doxantuwam di xol projet nga xamné amna ko fi ci Sénégal. ci la gis ni moom ci boppam mu arrêté travaux bi wax madame Mariama Sarr na résilier contrat bi ndaxte travaux yi lu ñu ci jublu ci marché bi ak entreprise bi nu mu koy doxalee bokkul di ci njëkk mooy entreprise bi euh, jot na encaissé lu toll ak 75 pour cent ci marché bi te lu mu jot a def motul sax 40 pour cent. wax na ci PACASEN ne daf ci am projet yoo xam ne dañ ko tàmbali woon mais ñun dañ ko téye pour bëgg am fu ñu jëmale xaalis bi. bi ñu ñëwee. dañu gis ni bâtiment bi ñu xool plan yi ñu gis ni ay bureau kese la te am na centre d'état civil bu fi nekk ba pare population bi war ko jëriñoo li gënoon mooy ñu tabax sant d'état civil yeneen gox lu ci mel ni Médina lu ci mel ni Parcelles Assainies Këbatooki wala Ngane madame la ministre lu mu wax yëpp amul fenn foo xam ne teg na ko ci fondement technique dafa doon wax rek maanaam di sànni mais ñun tey ñu leeral nañ population bi lu muy wax tegu ko fenn te lu ci ëpp ci mën nañ ci nguuram la amoon ñun ñu ngi nekk di corriger fautes yi nga xam ne def na